à présent on va parler léegi nag dañuy duggaat ci langue politique ndax euh, gis nañ depuis démb dafa xaw a agité ah premier ministre wala boog njiitu euh, Pastef ci liste bi mu nekk mu ngi waxee boor côté bële ñu ngi waxee boor wax yi nag jëloxoo ba kenn du xam lan mooy les versions yi nga xamante ne ñoom ñoo ñoom ñoo gën a leer euh, tey gis nañ ni démb ay militants wu Sonko. ñu doon yuuxu sonko sonko sonko nee nañ dañ leen attaqué. Mhm. foofu ca Saint-Louis. Big Taf je sais pas si tu as des infos wala a a vu des vidéos am foofu noonu tout à fait comme vous l'avez dit bien expliqué noonu la demee noonu la gis aussi les informations yi nga xam ne gars ñu ngi doon circuler à travers la toile mhm. mais dañu dañuy constat bi ñu mën a def rek déjà y avait euh, attaque am na ci tudd Sonko am na ci et lépp lépp lépp lépp ci période bi mu am mooy période campagne électorale foofu ca saint mhm. mais li ñu ci mën a wax rek du bëri te dañu war a jàpp ni ci ñun Sénégal on en a dañu doyal ci affaire violence quoi parce qu'on a vraiment vécu ces genres de moments depuis régime Macky Sall bi ñu fi nekkee. Mhm. rey nañ kii dàq nañ kii tëj nañ kii donc pour man doy na quoi doy na ci yu mel campagne nag muy présidentielle que ça soit dagg ba der bi wàcc ni mhm. c'était vraiment choquant quoi qu'on puisse dire loolu nag bokk na ci li gën a révolté loo euh, parce que je vais pas dire le premier ministre certes c'est le premier ministre du Sénégal mais njiital Pastef wax na wax ko da ngay ne am na lu ko metti mais quel soit alpha ak lu mu mënti doon pour ñun Sénégal lenn la ñu a mën a soxla mooy jàmm parce bu ñu demee ci période électorale mu am violence ñi causer violence a xool dem jàpp violence moom ala bu dem dañ ki koy causé ak ki nga xam ne moom lañ ko teg donc ci période bii ñu nekk li gën a soxla mooy jàmm jàmm boobu nag niñ ko mën a aaree mooy ñu yor force de défense de sécurité ak le ministre de la justice mhm. ak ministre de l'intérieur ñu xool nan la affaire bi demee pour ñu bañ a mën a amaat pour man c'est ça la chose la plus importante et le premier ministre c'est le premier ministre du Sénégal mhm. sa communication bu waxee day circuler loolu mi def mënu ci dara. plus forte raison nga nekk ci période boo xam ne période campagne nga da ngay am benn bain donc li muy wax yëpp mënuñu fexe a ala kulli information bi du jàll. Hmm. donc si c'était à moi wala ses conseils mënoon na gën a mën a voilà euh, waddu wax ji. xool nu mu ko organiser telle sorte que mu neex dégg mais nag nit bu meree moom il va pas se parce que il se dit que attaques yi du benn du ñaar du ñett. Hmm. mais nañu xam ne Sénégal ñun jàmm lañu soxla muy opposition muy ñu nekk waaw non man fi may waxee rek mooy agri mooy euh, wàllu agressi agressivité bi ngay gis chaque jour muy gën a avancé di gën a màgg mm-hmm. te am na loo xam ne ñun soxla nañ leneen lu dul loolu quoi mm-hmm. boo xoolee seen façon de communication même bu dul sax problème bi am dafa xaw a metti daal dafa mel ni xëccoowuñu pour defar réew mi te réew mi nañ euh, jàpp ni liir bi doo judd sax ba am ay kayitam ci réew mi la bokk kenn gënu ko bëgg kenn mais genre bu nekk da ngay xëccoo mbir ñun ñuy nañuy soraale askan yi nga xam ni ñooy cons wala ñooy déglu seen communication parce que dafa am solo kilifa. dafa am nu mu war a waxee. Mhm. kilifa dafa war am noo xam ne ni lay war a communiquer que ça soit ñu nekk au pouvoir ak ñu nekk opposition ak ci mën a doon rek. Mhm. dañuy bàyyi xel ñu leen di suivre. parce que tey nit bu waxee mer wala mu wax ñàngal noo di jaayante ay góor loolu taxul ñu dénk leen suñu réew. suñu réew lu ñu ci soxla lu stable suñu réew lu ñu ci soxla maanaam askan wi bu ñuy génn seen xel mën a dal ba fépp fu ñuy dem ci àdduna ñu xam ne kat ñun ñu ngi en sécurité. Mhm. mais maanaam des fois bu heure bu politique amee wala ñuy xëccoo benn nombal tànk rek. Mhm. day métti métti boo xam ne damay naan damay poser la question à moi-même est-ce que ñii dañuy xëccoo rek pour defar réew mi. Mhm. dëgg la xëccoo pour defar réew mi nag bon mën nga communiquer directement comme si mën nga communiquer du mais ça vaut pas la peine tëkkonte wala genre pour man jaru ko daal. te yal na jàmm yàgg Sénégal moo ëpp solo. yenn xëccoo yi daal. am na solo du ñàkk nga am ay kàddu yoo ci bëgg a sant. bon man de li ma ci wax mooy politique du diine du tarixa politique yëg-yëg la ak teraanga koo yëg yaa ko moom koo teral aussi yaa ko moom. Mhm. beneen bi mooy boo nekkee njiit un nit mën na ko def boppam mais pour nga doon ko sax day doon problème. dëgg la leadership dafa war a xam lu baree bari loo xam ni lii da koo war mais lii waru ko parce que Serigne Cheikh Al Maktoum dafa mës a wax ni boo taxawee ci mbooloo ni dama ni gas nga kàmm soo waxee suuf sa bopp wala nga suul ñi nga nekkal foofu muy waxee mooy wax bal la maanaam ñiy def politique ñëpp képp ko ci wax war nga mesurer say kàddu. Hmm. parce que am na ñoo xam ne dañu la bëgg. ci sa wax ci lañ mën a sëggundiku pour mën a def naka sudul noonu. dëgg la soit que muy ñu nekk ci pouvoir bi wala ñu nekk ci opposition bi nañu xool ni ñuy doxalee ñoom moomuñu réew mi politiciens yi ñoo gën a tuuti ci réew mi. dëgg la matuñu juróomi nit. Mhm. kon ngir yàlla ak yonent bi defe leen seen politique ci li mu gën a rafetee quoi beneen bi mooy. Mhm. Euh, li waa ji naan la paix c'est pas une mot mais c'est un comportement de tous les jours. Mhm. yar lu baax la mais jàmm mooy lépp aussi macha allah loolu laa moom ku ma ciy wax quoi. jërëjëf wax yi am na solo Baye Amdi. waaw doo ci bëggoon wax. waaw politik moom. doon na loo xamante ni mooy loolu. mooy. bi tamit. nga gis nga gis nga réew ah. bi. fam loo xamante ni. mooy loolu dañ ko war a dépassé. xeex. père jox ma plus d' argument. dama may jàmm moom euh, moom. may jàmm moom moom moom. waaw dëgg la nga développé nga développé. waaw mais maa ngi développé kañ nag mais may jàmm man man bu ko defee ma développé affaire bi. nga mais maa ngi toog commencé ku ma wax kii ngi daaneel léegi nii nga ñëw rek enseigné ma. am ji dama laa bëggoon këfaat tuuti rek. waaw këf ma ma ngi may nuyu euh, koo xamante ni leader la woon biir géejawaay mm. nekkoon jàmbaar mm. nekkoon koo xamante ni que bañkat la woon nekkoon koo xam ni liggéeykat la ku mm. bëggoon géejawaay ku bëggoon réew mi muy euh, Lat Diop maa ngi lay nuyu bu baax di la wax ni fi nga nekk yàlla na suñu borom gaaw génne parce que géejawaay ñun bu ñu amee ay corbia bu ñu amee ay ambulance bu nit ñi di gis seen bopp ci opito yi bu nit ñi di gis seen bopp ci jàkk yeeg yeneen ak yeneen yeneen yeneen ak yeneen mm-hmm. c'est grâce bu ko population Guédiawaye amee baax na ñun tamit ñuy fësal suñu coloré ak moom voilà lat maa ngi lay nuyu di a jaale sa papa aussi tamit yàlla na ko yàlla yërëm te xaree ko àjjana amiin léegi père am bi dafa am lu ma la ci bëggoon dolli Barthélemy itam dañoo dañoo dañoo woon dañoo immobiliser li nga xamante ne moom mooy son convoi ñu arrêté ci ay ay garde corps yu bari ci yu mu àndal nga loolu déjà injustice mi ngi noonu hmm? injustice mi ngi noonu hmm. ndax yaa politique lañ toll Ah. caravane jàmbur. Ah. waaw tey dama déggoon ni kii mhm. day ñëw day ñëw day ñëw day day day euh, def kii euh, Sonko day ñëw fii. Euh, Baobab Baobab waaw fa la mu defaat déclaration tàllal ba ba ba Mbàkke mënoon na ñëw. léegi ñaay fit na ñëw mais Sonko ñëw Sonko sax dama bëgg mu nga xam ne li mu nekk ñi ñee ko ci bàyyi parce que man bul ma bul ma ne bul dugg foofu xam nga li may wax da ngeen nit ñi. ba nit ñi bu ñuy wax sax nga ne bul dugg foofu mais. qu'est-ce que ça veut dire lan la gars yi naan yow Bart nga yow ci Bart nga ni mais man Bart bu mag laa. nëbbatuwuma ko da nga koy wax tamit nit ñi xam. mais déggoo li ma la wax. Ah, mais yow moo tax man Bart laa man xolal booy Dakar Bart moom laa gëm te bu ma yàlla bëggee dama bàyyi ak moom. Mm-hmm. ragal féete day xañ a wërsëg. mais violence bi ñu wax Saint-Louis que ne ñu. ay ay ñooñu baatu ñoo ko def nag. amul. Eh. Hmm? amul. c'est une fausse mention <laughs> ay yéen journalistes yi faux type ngeen da ngeen di bind rek da ngeen da leen vous êtes tout corrompu. kuy journaliste ma ne may ma jàmm. kan mooy journaliste fii. da ngeen di bind noonu baaxul. amul kan mooy journaliste fii. mooy yow comme ces genre yi li nga wax comme li nga wax. non mais du ma journaliste. chroniqueur nga faux type nga. <laughs> yaa ngi dégg chroniqueur nga. mais information yi ñun ñëpp ñëpp ko circulé la. waaw ma ne amul. waaw. fan fan nga ko teg yow. lan yow fi nga teg ni moom la. information yi circulé. waaw information yi information dañ ay ñooñu battu ñoom ko def foofu amul. mais yow na nga jàngatee euh, coow leeg yooyu noonu. nu ma ko jàngatee mooy comme ni nga ko jàngatee yéen. <laughs> waaw noonu laa ko jàngatee. Ousmane Sonko nee na comme Bart violence yi fu mu toll léegi gatsa gatsa nan lan nga gisee loolu. nañ génn dañu loolu moom duñ fa àgg ak moom. mais waaw mais est Sénégal la ñor ñun déglu déglu dama lay wax. gis nga ñun ñu ngi suñu campagne normale. Sénégal ñu ñor ñun waa Barth dañoo silusé ku ñu xam ne ñun ku ñu xool xam ne ñun du ñu tooñ waaye nag bu ñu nekkee suñu yoon di dem boo ñu commencé ñu wax ne ay góor na ko si waaw ñun nag suñu yoon lañ nekk te ñun nag campagne yi fi ñu nekk nii wax ay la yéwén ñun fu mu nekk nii parce que boo xoolee ñun Touba dañ ko coalition bi tudd booloo defar Sénégal eh. <laughs> ànd sàmm kàddu sàmm sa <laughs> c'est que soo yow ci boobu da ngaa faral kii. yaa ngi koy bàyyi muy jiw. ànd sàmm kàddu yi nañ ko sàmm. li ñu waxoon nañ ko de. kàddu yi nañ ko sàmm kan mooy tëdd liste bi. waaw Barthélemy. waaye soo doo doo ci génn. yow dafa ndànk rek Barth mooy tëdd liste. topp si la doo jël ay info tamit. topp si Anta Babacar Ngom. yaa ngi dégg ñoom ki Bougane ñëw. ñooñu nga xamante ne Bougane lan la defalul Sénégal. Pape Djibril Fall ah Pape Djibril Fall lan lañ defaral Sénégal ah Barthélemy lan la defalal Sénégal. defaral nañ lépp. Barth a ngi woote. yaa ngi dégg bàyyi loolu. alaaji xoolal. yaa ngi dégg. Barta ngi woote. waaw mais da ko war a jël. Barta ngi woote de. xoolal xoolal. yaa may dégg. mais da ko war a jël. kon dafa am loo xamante ni te dafa am loo xamante ni tey jii. mooy loolu. waaw yéen mooy dégg. nit nit lay doon. waaw. waaw man daal koo xam ne. oui ma. xam nga yow sa ah. kàddu bi mu wax. yow papa. dañuy décroché papa. sàmm sa kàddu. lu mu la jël ko rek. sàmm sa kàddu bi si la la bëgg wax ay explication mani wuy ma kii ko si. mani Anta Babacar Ngom a ngi fii di di di di def ay yëf. daam d'affaire la yéen jigéen ñi. ngeen gis xale bu jigéen bu mel noonu nekk si biir terrain. waaw ah, kooku nag ko war a yéen da a dooleel. ndax nañ foo xamante ne te dafa def ay preuve bëri sax ay preuve yu bëri. yéen jigéen yéen jigéen yëpp man jigéen yi mën a gis Sénégal yëpp dañ daan waroon am solidarité mhm. ñoom xeex la ko jàppale ko en loolu sax si jigéen yooyu noonu. xaar même mu xam nga ñun itam amuñu droit campagne. amuñu droit amuñu ah, droit campagne si jigéen yéen a ma laaj rek. yéen a ma laaj ma laaj rek laay wax. papa si jigéen yooyu papa si jigéen yooyu dama si jaar mu nuyu ci sama benn xarit boo xamante ni macha allah dafa sonn torop ci euh, campagne bi sonn torop ci coalition coalition bi alors euh, muy Malvina Malvina bu Barthélémy Dias mi nga xamante ni wax dëgg yàlla jigéen ju mën góor la mhm. foo ko fekk mi ngi nekk ci wetu Bart di ko jàppale macha allah. Mhm. Euh, mu nekk xale bu ndaw na gëm boppam gëm politique bi ba pare Malv waaw ñu ngi koy nuyu au passage ah la guerrière de Barthélémy Dias bu baax a baax papa mhm. foofu nga nekkoon léegi baax na du ko jël de foofu kay génn na fa bëgg naa mu mu mu sànd ci kàddu itam ndax politique bi ñëpp la concerné violence yi bari na euh, mu ngi tàmbaliwaat te yaakaar naa tey du lii la ñuy xaar ci politiciens yi Sénégal dafa toll ci foo xam ne dañ ko war a defaraat. Ah, n'est-ce ñu boolewaat xol yi boolewaat doole yi ànd liggéey. ah bu ñu ko defaraat nangu ñoo bàyyi ñu defaraat ko nag. <laughs> Ah, ku leen bàyyiwul ngeen defaraat. ñu bàyyi Sonko campagne. Mm-hmm. ah non non ñu ko mu gañ assemblée bi mën a defar réew mi. bugguma laaj eh, dugg ci politique bi. ci carrément mais mbooloo di ma waxoo de. dañ bàyyi Sonko. Mm-hmm. ragal féete day xañ a Mm. waaw man patriote la. d'accord ah. 100 pour cent. Ah, mais yéen waaw sa xalaat rek mais en personne man sama xol lool moo si nekk. ku nekk nag am nga droit bëgg ku la neex. mais lan la soo ko jox nañ ko réew mi. nañ ko bàyyi ñu voter ko. non fi mu ne léegi élection législative. dañu nekk député yi député yi la wax pour voter assemblée. mu ñu ëppale fay nit. waaw waaw mais moom si benn sortie wam ne ne euh, réew kenn la ñuy jox assemblée. waaw. mais la wax waxet ah. ah, ci eh, li ma bëgg wax rek mooy fi mu ne nañu bàyyi. fi ñu ko bàyyi mu doxal. Euh, njiitu Pastef mu doxal. njiitu Pastef. laa gis mm-hmm. mm-hmm. kenn tere ko doxal. Mm-hmm. njiitu Pastef euh, li mu yor ñi ci biti bu ñu ko yoroon dootuñu wax dara. ñitu Pastef wax nañu ba jël réew mi. Mm-hmm. nit boo waxee nag ba jël réew mi. <laughs> Ah, nga la doxal. te bañ a bari wax. yaa moom lépp nag loo xam ne mën na ci réew mi yow yaa ci teg loo mais li koy may doole mi ngi assemblée bi nañ ko fotee rek mu mu liggéey réew mi. kii ngay politique kii ngay débat de politique. dox <laughs> na amul bu yàq sa salim. yow xam nga li baax li baax doo ko jox 16 millions de francs pour toog nga ba mu ko di jox. Ah, Abou Mbaye génn na génn na di dénoncer les appels à la violence. Ousmane Sonko Abdou Mbaye Ousmane Sonko waaw appel à la violence yooyu muy def du dëgg du yoon te mu ngi réclamer des mesures urgentes. Hmm. ak Amadou Ba mais mën naa wax sama xalaat ci leen affaire te à l'occasion de pouvoir bi ñu nekk. damay dégg benn communication bi am mooy nguur gi fi toog. danoo xeex danoo coow ba am lu ñu am xëy na ñuy moytu ci coowal lu bari. Mhm. signifiewul ni opposant bi dafa war a ñëw pour dal ci kawam pour conduire ko à l'erreur mhm. foofu foog ñu def ci attention bu baax. d'accord boo déggee Sonko fi mu communiqué mooy que ni nit bu bëggee jàmm nañ ko fekk ci jàmm. Mhm. man je ne suis pas politique. mais dama la bëgg wax lu loo xam ne maanaam bu ci def attention mën na indi problème ëllëg. dëgg la gis nga boo nekkee ci nguur. doo bëgg di lor. donte nag yaa ngi ndomba tànk yëpp pour lor ñëpp mais boo defee benn acte rek dañ naan li mu yor nguur moo tax mais loolu bu ko nit di bañ yow mi nekk si opposant il faut nga bañ la ko loolu moom bu nekkee tey agression am na ndar am feneen ak feneen yëngu amul c'est parce que ñoom la neex parce que ñoom la neex de mais bu leen neexoon tey mbëkkante bu amoon tey loolu beneen àdduna bu tukki la nan def attention ci violence bi am ci côté boobu noonu man moom yow xam naa na ngay fayeeku bu ñu paree fii na ngay yow moom barte nga ba ma lay xam ba léegi Bart daal la xamee. man hmm. je Sénégal. may ma na ma lii may ma lii waaw may ma lii dafa nànk xam nga li ma bëgg mooy que ni man je suis un artiste comédien Barthélémy Diaz mi nga àndal daf may soxla ëllëg ma war koo jouer spectacle waaw yaa ngi dégg opposant beeg pouvoir beeg ku mu ci mën a doon le comédien chargeur universel la mm-hmm. dañ koy soxla ci lépp bu dee nag fu may vote ji wala soxla ñu soxla ma ci benn affaire su ma duggee ci urne yi kama war a votel xam naa ko mm-hmm. su ma ci paree toog sama kër mais bu ma waree kaas li nga xam ne mooy askan wi man à travers ma comédie à mm-hmm. travers sama li may liggéey ku ne xam ne dukkure sax ku dégg ay kàddoom ci wàllu ñàkk man loolu rek politique la nañ dimbali nit ñi bu ñu feebaree faju même boo yorul dërëm da war a faju ba pare ñu doog li jënd ñaata nga war a fay kooku loolu maa ngi politique sama politique bu bopp donc ñoom ëpp ñu ma gëdd ci biir Sénégal danoo juddoo Sénégal ma juddoo Sénégal ñu am carte d'identité ma am ñu d'identité ñuy quelqu'un may quelqu'un ñuy xeex benn affaire ma koy xeex donte sama budget baaxul <laughs> bon pour man xeex bi gën a ëpp solo mooy ñun ñëpp ñu dem jëli suñuy carte électeur mhm. pour man xeex boobu moo ëpp solo ko xeex di tojante ay bopp wala di dóorante ay jaas mhm. ku nekk sa xeex mooy sa carte électeur sa xaw ma ni ñu koy waxee fal sa député mooy sa carte électeur gars yi dem nañ ngeen seen carte électeur ngeen bàyyi xeex yi gis nga ñi leen xeexloo nii bu ñuy gisantewaat du ngeen leen fekkee. Mm-hmm. ñoom ñëpp ñoo far. Mm-hmm. Barthélémy Dias Sonko dañuy rayante mais bu ñu waree gisante dañuy gisante feneen. déedéet du ngeen ko fekkee non non non communication non <laughs> am bi politique a wax déedéet. politique. bu mës a wax moom day wax si si si si si expérience. ah mais ko gis fii tan bombee ngi nii tan bombee ngi nii ñun comédien yi. waaw ñun ñëpp dañ ko war a jàppale. tan bombee ak Ngone Mbaye. tan bombe mba ci Ngone mbaay lan lañ dañu tamit day. waaw député ah tan bombe mi ngi xeex géej waay. Ah tey jii war nañu am comédien bu toog assemblée. mais mais mais yéen ah, pas comédien je parle de l'artisan artisans yi am nañ benn koo xam ne moo nekk tête de liste muy Bamba Sow design je parle de l' artisan artisan mooy Bamba Sow design un boo xam ne moo nekk tête de liste. mais c'est pas la même je parle de l' artisan. moom artiste à bu nekkee tête nit ñi am nañ droit votel ko. Bamba Sow bu nekkati li ñu am nañ droit voté Sonko am nañ droit c'est-à-dire li Sénégalais war a mën a xam gis nga si man damay gis ne gars yi dañuy jump dañuy jaawale élection présidentielle ak législative li nga législative c'est la chose la plus importante parce ah que yow ki lay voté sa loi ki lay voté li nga xam ne ay projet de loi yow yaa koy tànn mhm. mu dem donc ñun Sénégal dañuy attardé wu ci yoo xam ne pour man amul benn importance ñun ñii nii nii nii nekk ci milieu milieu culturel bi waroon dans les normes war nañ am ku ñu représenté. waaw wax dëgg yàlla mënoon ngeen ma investir rek ma dem toog. <laughs> Sonko de Sonko de ni ñu terrorisé nii faaw mu am ku ko terrorisé. terrorisé. kan terrorisé. Sonko ni mu ñu terrorisé. kala terrorisé faaw mu am ñu ko terrorisé. jàpp ne moom day terrorisé nii. yéen lan moo tax yéen bu ñu waxee waxu Sonko rek seen yaram yi dee ngeen. non non du dee man attentivement wala ay garde attentivement. man am na impression rek laa leen di impartial. ah impartial yow ngeen ngeen si yi ngeen ne waaye. man mënuma débat ak yéen mënuma débat très sérieusement mënuma débat ak yéen. su ma waxee ak sama akulaay taala Sonko n'est pas agressif. waaw barke Seydina Mohamed ku waxal sa bàmmeel. Ah. nekkul nit ku agressif maanaam nitu jàmm la. kan moo agressif léegi. yow yaa ni yow um, Sonko lu muy terrorisé xëy na terrorisé yow. bon loolu sax danañ loolu wax dëgg yàlla du débat. Hmm. ayca dañuy clôturer débat bi ah. ak. Euh, Sofia te nga wuy Barth moom di la woo. li nga xamante ne jot nañ ko wax fii yëpp. ah. Alaaji moom day jékki-jékki rek mbéj ma bett ma tamit nag. maa ngi leen baax. non mooy yaa ngi fu ne. yow mi sa néew fóon. non yow sa sa point de vue rek par rapport situation bi. parce que aussi tu es promotrice d'événement ñu ngi jëm ci. ci ay élection élection yoo xam ne ni jege nañ décembre décembre xam na ngeen ni képp kuy artiste gëj nga dund décembre yu neex képp waaw képp kuy képp kuy artiste gëj nga dund décembre yu neex waaw ba pare toog ñi sax ñu ngi fëgg seen bureau yi kenn mënu campagne yee tax campagne yi nangu na lépp amul maa ngi nuyu Touré bu baax maa ngi nuyu <laughs> sant di leen ziar di nuyu bloc administratif eh. di leen jàll il est 17h dañuy jàll ci li nga xamante ne moom. mooy eh, yow eh, <laughs> ah. pour dem départ. <laughs> li ma raté daa bëri. bureau yi tëju. Ah. activité yi arrêté. waaw waaw man parce que démb ndeysaan borom borom kii borom Ziguinchor mi ngi koy wax ak sën sul lay xaw ma. Mhm. gars yi nga xam ne ñoo ñun ñoom la ñu war a ubbi fëgg seen bunt pour ñu ubbil gars yi. Mhm. ñu ngi ci campagne bi. déjà loolu rek retard la ci. festivités yi nga xam ne mi ngi ñëw ci li nga xam ne moom mooy fin d'année. Mm-hmm. mais man li may wax rek mooy dañu war a def appel à la sérénité et non à la violence parce que dégg nañu Amadou Ba Amadou Ba wax ko. Mm-hmm. Euh, sunu Sénégal la. Mm-hmm. liñ doon xeex ci nguur gi nga xam ne moo fi jóge bu ñu deful ndànk looloo fi nar a ñëwaat te mën na bañ a ña mën na ñàkk en fait parce que. bu fekkee dañu ñëw indi benn gouvernement bu bees jub jubal jubanti ñu moytu li nga xam ne moom mooy violence te loolu lañ doon xeex. muy ci opposition di ci pouvoir li ñu def rek mooy euh, ñu jéem a xool naka la ñu mën a liggéeyee suñu Sénégal mu jëm kanam mm-hmm. mais violence par ci violence par là verbale wala physique loolu amul benn sens parce que ki ngay gaañ sa mbokk la ki ngay gaañ sa frère la mm-hmm. te on a ci plateau yëpp ci télé yëpp euh, tout le temps même débat yi la ñuy wax même même même chose yi la ñuy répété donc il est temps ñu changer un peu circuit politique bu Sénégal mm. parce que li ñu tarde dafa bëri kii wax na ko sànq du du politiciens yi rek ñoo fi nekk ma bëgg sonal nit ñi te ñu waxante dëgg am na des choses plus importantes yu fi nekk. Mhm. dund gi liggéey bi chômage bi. bari na li fi nekk loo xam ni war nañ ci mën a débattre. Mhm. Sénégalais yi taxaw def ci taxaw seetlu. Mhm. mais bu ñu fi naree nekk depuis presque huit ans dix ans ci ginnaw politique politique politique benn moment ñun ñëpp dañu taxaw dañu kalew te Sénégal war na mën a dépasser ci point bi mu nekk ñu ngi waxaat encore une fois gouvernement bi. ñu veiller à la sécurité ñi nga xam ne ñooy campagne ñu sécuriser leen de tell sort que beneen camp du ñëw di leen gaañ. ci camp yëpp nag opposition ak pouvoir mu bañ am par parlo parce que li jeex na ba pare le 17 la. ku ne dugal dem voté ji ñu xam fu dëgg gi féetee après ku ne nekk jàmm. je pense que loolu mais ci wàllu ci wàllu sécurité boobu sax démb amoon nañ ci invité bi doon wax si wàllu kaaraange.